maa ngi lay nuyu di la man xam naa damay jóg taxaw sax de waaw du mën a ñàkk réparé kaay teq cay teq waaw damaa gàtt nag de idi ma jege si ah. teq xam nga teq daa bëri bagage <laughs> réparé moom boole wu ci réparé moom réewut kaful dafa fas kanamam waaye teq daal mu ngi muñ xam naa dañoo bokkul lu ñu yëg ñoom ñaar yëg-yëg yedul benn xam nga kii daa am ci lu mu jóge te xam naa ne bor boobu la bëgg a fay waa way kii nag it am na ci lu mu jóge te yaakaar na ne day nooyaat xam naa kon loolu moo tax mais bu ngeen xoolul caméra yi du neex wala ma bàyyi leen ngeen a ah, xoolante leen ba tey ñaangul de <laughs> man <laughs> maa ngi lay ziar man nag xamewuma woon ci façon bi quoi da ngay gis damay gis nga sourire mais tey dama gis rek ñëw nga aj kanam gi quoi noon damay bëri ku bëri wax ko moo tax <laughs> daa bëri wax. lu tax nga ne daa bëri wax. daa bëri wax il faut xamal rek yaa ma gën a wax ji warul mën a bëri da ngaa dégg wax. ginnaaw bañ sant yàlla julli sant bi xam nga di sant suñu ñaar waajur mm-hmm. am jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaroo rek moom Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Saliou sama yaakaar tey ëllëg jërëjëf di Serigne Saliou sama yaakaar tey ëllëg mm-hmm. xam nga di nuyu mbëri fi nekk yëpp di leen siyaar di jokk nekk sa wàccuwaay di nuyu promoteur di nuyu suñu père xam nga mm-hmm. di nuyu aussi tamit grand promoteur di nuyu samay entraîneur xam nga sama staff yëpp maa nuyu di leen siyaar di nuyu sama maam quoi sa maam la. teq mi lu ko def sa maam. sama maam ki jamono dégool la <laughs> dégal tubaab bu yàgg ba. Hmm. jamono dégal la quoi. préparé li ngay wax doy na waar mais mais yow kii danga ko njëkk a nee nga dafa bëri wax hmm. ñu ne déet na waaye ngeen waat sa maam la waxam ju bari daa yegg si ci yow wala daf laa wax lu la naqari wala. non kii kii mënu ma wax lu ma naqari man sportif la lan moo la xamal bëri wax. non déggoo ma de wax da ngay bàyyi ba mu jot nga wax su jotul waroo wax. lu mu wax moom. non kii amul amul fit bu taxaw war a wax ci man. amu ko xam nga Babacar tey su ma la déggee ngay wax ak keneen di wax yenn wax yi. ma xam ma xam ni nga mel. suñu waree wax du ma la bàyyi nga wax si man. Hmm. yow nooy kii li may def. waaw arbitre mu jàpp du ma ko daan. neex naa du ma daan. kii nii. kii sama maam la. kii kama mag kaka mag kaka magaa sax moo ko mag. moom teq mi. mooy yow kii kii di maam nga nag kii jamono déggoo la laa la wax. yow ñaata combat nga maa ngi ñaata victoire. quatre victoire benn défaite. benn défaite rek nga am. Hmm. ban man est-ce que daa mel 2018 dix mois 2018 xam nga daal 2000. xam nga waaw côté yooyu la daal. kon de yàggoo ci. ay ñaar rek jàpp ñett yow. waaw 2018 la daal. nga ne sa maam la. non non le le 6 le 6 août 2017. le 6 août 2017 2017 waaw le 6. macha allah xale nga de yaa ngi ci 3 mm. ans de carrière. Mm, ci la dugg quoi. am na solo mais sa waay daal wax ji nga bëgg a dindi daal. kii nii. <laughs> <laughs> yaa yàlla bëri na sutura daal. teq teq maa ngi lay ziar teq sa waay teel naa dal sa kaw de. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wala xawla wala xuwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim ma sant yàlla julli ci yonent di maa ngi sant suma ñaari waajur di sant suma yaay di sant suma yaay di sant suma papa di sant suma bàjjen di sant axlu làmb di sant promoteur bi taxawal làmb ji waa di sant sunuy coach su ñëpp ñuy sonn ci ñun di nuyu Aliou bi ma àndal Ardo ñaari yaar numéro 2 waa kii day wax day tiit day tiit di wax. kon daa tiit. waaw di sant sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim di wax marhaban bikum Cheikh Ibrahim xam nga man day tiit di wax. kii day tiit ba kii pareegul sa ci ay daanu. pareegul ci daan non non pareegul. kii de non waaw day mais day tiit gis nga mbër buy tiit doo gaaw a yeewe. xam nga kii bu tey na man damay wax de mosul wax ci moom kii bàjjenam sama koñ la dëkk parcelle mus ñu dajante maa moom parcelle ubbi naa salle de jeu koñam géejawaay mafia bi koy diriger man samay fils lañ sa waay neexee mu man maamam laa bu ko nee papam laa mais dinaa la war rakiste la ménage fobeer saale waale yaale waale ba nga papa téex baal ma ba lay neexal di la génne sat bi kii dama koy duma di ko rakiste ménage saale waale yaale waale bu naan papa téex baal ma wuy papa téex li nga ko nar a waar sax kii nii tiitoo ci moom mii dara kii magam sax mag moom lamb la pour dire dama ko may loxo rek pour xam nga fi mu nekk moo tax tam surtout ko dafa bokk ci lamb parce que magam mbër la te xam nga am na nu mu demee quoi xale la comme ni ko waxee xale nag man maa ngi ci six combats cinq victoire benn défaite seen carré de rawantewul benn défaite la am moo fi daanaat ku moo fi daan ngeen vidéo nga génne ma ne di commentaire yow xam la war li nga lijjanti sa yaa ngi dégg barki Cheikh Ibrahim boo dëggalee sa bopp du yàgg boo dëggalee sa bopp barki hmm. Cheikh Ibrahim du yàgg. Ah, léegi nañ ko may léegi. amoo doole nañ ko may léegi. fii du pour maye gannaaw ay maye kat dafa ñëw eh eh, eh yow bu doon déglu ma rek. lamb ubbeeku xam nga fii du pour maye ah non maye amu fi. non du ñu maye de déedéet. yaa ngi si ma néew déglu ma rek Babacar kii dama ko wax ne maa ko gën a bandi déglu ma rek barki Cheikh Ibrahim moo gën a wopp man dama laaw laaw laaw sigi doole mu ne bay bëgg a dee. dégg nañ la bu baax gaay xoolal gaay amuñu nar benn yabooy ngay teg ci sandi job ko déglu ma wax kii bu ma wooy ci ruxu ma duma ko ba jàngal ko bëri. kii amul sax bandi kii du bandi. li nga wax dégg naa ko léegi dama bëgg ngeen. sees ngeen sa adversaire bi nga waaw sóoraale ñi ñi leen di seetaan léegi xam nga am. non xamul ndax booy bi dama ko nawoon déglu ma rek dama ko nawoon quoi kii bu ma mënut a wax ak moom. waaw d'accord non bi mais mais waa sama waa koñ ñu ne ma yow yow wax lii nga am waxuma yaa wéri de yaa wax li nga am yaa wax li nga am ma ne leen booy bi dafa ma jox cër quoi ma bàyyi mu seet muy wax ay bu baax adversaire koy sant di ko gërëm na ma ne suma kanam laay wax li ne suma kanam insha allah te ci koy jëli la ne ko suma kanam de mën naa may loo xam ko mi ko nuyu en passage ah da nga may déglu mënoo maa jaxase ma sa morom naa la duma naa la daan ku ne yaa ëpp doole téex da lay nax amoo doole booy liggéeyal sa état kawman bi amoo doole sa état yow <laughs> yow ngay mel ni mbuusu ndox bu fàccee nga naan ma fii la xarek béy maa la bu doole fuuf léegi léegi neex na dama diri mbaal bëri bëri maa la bu doole maa la mën daax laa bëri si doole mu ne laa lay tegal teex dégg nañ la sama waa teex c'est bon ki dafa lii neex na xam nga la moo tax neex na léegi da wayu leen ma teex teex wayu ma teex teex nañ kii bu mu amateur a bu mu amateuru tefes waa dama bëgg yeew waaw man sa li moom a mel ni quoi booy bi daa tiit waaw non xam naa yow ci nelaw eh da may dégg xool ma wala moom bët nga may ne ko di génn de si biir nga nekk non gi day réefé waaye ki naan ay ranga bëri wax non non non waaw dégg ne prip xam nga 30 secondes laa ko a daa fekk gaynde buy nelaw mu way yee lamb ji ubbeegul ma la jàppee yow waay tex s'il vous plaît yow la neexee may ñu dañoo bëgg léegi ngeen tàggoo dem toog ñu joxante rendez-vous parce que yéen moom coow li ko jar jarul xeex ci mbedd waay ko ñoom laay entraîné xam na bu baax ara jàll mbaa si ma sala fa la nekkoon su ma jógee foofu laay dem yaa may dégg Pikine maa ñaay yaa may dégg voilà non non mais fii xam nga rek fii mooy loolu mais kii damay ci bandi naa ko jàngal kii sa nu mu demee yow barki Cheikh Ibrahima yow si boo na ko waaree ah waaye yéen teet mi métti na de. non non booy bi dafa ma ma waaw teet mais s'il vous plaît. fi di mbéj mbéj naan sama maam man laa la ma dee maam. teet doo dégg xale bu ndaw bëri doole. ah tool lu ma neex laay toolu. man dew ma États-Unis dew ma fenn Gambie mooy sama États-Unis. Babacar ah. Babacar non non wax. waaw non mais ay commande bi mu da ngeen di làmb. Babacar ñun ay ay mbër lañ. waaw est-ce ma dégg. waaw ñun ay mbër lañ. en même temps ay ay porteurs de voix lañ. ñun yor ñu expériment la quoi bu baax ay nit ñoo ñu seetaan dañoo dañoo war a ànd ak yar ànd discipline isaam dégg su waxee dama koy déglu su nit ñu war a waxee da leen war a déglu quoi pas ñu nekk fii mbër fu ñuy fu ñu dëkkal bu ñu fa dëkkalee dañoo dëkkal waaye da may déglu rek dañoo dëkkal dañoo dëkkal mbëri dañoo dëkkal mbëri ay dof quoi est-ce que amee dégg dañoo dëkkal dof ñun duñu dof ñun ay noobu lañ est-ce que amee dégg ñun ay noobu lañ quoi dañoo war a wane ay bon exemple pas nekk fii di ratata yi waxul amul sens. waaw neex na comprendre baax. waaw léegi léegi léegi wuyu ma dama leen di wax xam nga kii barki Seew Tijaan bu ñu fayeeku woon maa ngi moom ah. ñu fayeeku woon mbaal boog bu ñu joxoon suñu nar kii dama koy kooj lekk naram. kii du gërëm naru arène nationale. bi am waaw promoteur bi nag bi taxawal. léegi foofu bëri boo si tournoi bi yëpp. looy wax Idaly du rëccu lu mu doon tëggee combat bi suma grand mais parcelle mënoo lim mbër te mënoo doo wax tiix xam la mu jëy juddu siiw gaa yi nu mu demee man yàgguma mais bu nekkee di yàq der naan ay seega c'est-à-dire non amul problème waaw di waaw di encourager di la encourager di encourager tous les waaw ñu ne ci média bi Modou Anta xama Omar Saliou borom waaw ñoom yam no ay ñoom Babay Ñankoog ñoom jili jili mbër la woon sama génération la mais daa bàyyi bëre bëre la doon def nag da doon takk sànni. jiini bee billaay wallaay. di cher ñëpp. ba bés la fa demee. lo yow looy waa di woo waa Thiès. waa Casamance xam la di woo waa Thiès waa Casamance waa Mboro Noto Bono Kayar xam lax di woo bépp mboolu mbaal fu mu nekk di woo waa Kafountine waa Cap waa Batara maa ngi woo di jaaree capitaine Saram xam lax di wax gësama gësam gësam waay loolu lambe gësam waay faaru mbaaw waay si gëla waay jéggi sirat waay maa daan gësam waay le 21 waay décembre gësam waay laa ko gësam waay réparé gësam waay amoo sens mu la yow salabaar laa lay du ma la sax nga matal nga toogal toogal toogal toogal waaye yéen ina <laughs> waaye nag loo ci mën a dégg daal ji moo daan tàkk lu mën a xew làmb ji moom xam naa dana neex ndax sa waay mii sa waay mii moom man de teq mii teq daal xoromam la andiwaale moom saf na xorom sàpp de looy tàggoo ak looy wax promoteur bi waaw promoteur dañ koy encouragé xam nga di waa di naan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg aussi tamit di di jaare son entraîneur quoi Boy Cham dafa wàcc quoi c'est la première fois mu xam nga jàkkaaroo Kémara te war na su mën a jaare bu baax di sant waa Guédiawaye xam nga di sant waa Mboro aussi waa Noto Taïba Ndiaye Taïba Mbaye Kër Malla mi nam xam nga di dem ba suñu dëkk di sant waa Laañaar comprends nga tund Bawol yëpp maa leen siyaar bu baax a baax a baax kii non Idaly Idaly lii maa la ko wax gis nga combat bii bu yéen ko sécurité est-ce que am dégg li tax ma ne na nga ko sécurité moom mii nii nii si tànkoo dellu avance yi si la ne est-ce que yaa ngi dégg <laughs> sama kër bàjjen boobu muy wax est-ce que nii instant yii nii boppam. est-ce que nga xam bu baax instant yii nii wóolu wóoluwul boppam est-ce que nga xam ne dégg. yaa ngi may dégg wuy ma mburu foofu ko fëriñ. waaw mburu foofu ko fëriñ moog sama papa ñoo bokk ndey ak baay est-ce que nga kon kii essai ni ay wax mu jigéen dañu ñëw si woon tant que dara avancé la nekk man damaa gëm sama bopp islam bi dégg man dama man dama gëm sama bopp man géejawaay laa dëkk islam bi dégg géejawaay laa dëkk falaa yeewoo falaa xam nga lépp sama géejawaay la am benn man ku may doxal combat man ku may doxal combat da laaj waa géejawaay man géejawaay gi ma dëkk bañ nangu du ma dëkk parcelle di ñoddi waa Thiès da nga may déglu booy déglu ma du ma dëgg géejewaay. waaw répar léegi sama wuyu la ñu géejewaay da nga may déglu mbër fi toog ñii ñii tamit ñeenti mbër lañ ko wax damay a sama entraîneur. waaw non joxante leen rek maa ngi sant suma bu baax a baax a baax di sant ku ci mel ni xam xam nga di sant ku may liggéey participation maa leen nuyu ñoom ñëpp. am na solo di leen siyaar bu baax baax baax. comprendre bu baax baax. man Guédiawaye laa dëkk damaa gëm sama bopp gëm waa Thiès Guédiawaye laa dëkk. waaw baax na léegi c'est bon. waaw waaw loxo waaw. xool sa loxo nii bu ma la joxee loxo da ngay damm maa la bu doole bu ma sama loxo gis nga loxo nu mel damaa kóor am yii damaa kóor.